seeti président Macky Sall bi ne dafa bëggatul ñuy wax ne réew mi dafa Macky ndax turam ci boppam euh, tur la boo xam ne kenn waru koo jël di ko euh, def ay mbiru caaxaan wala bu fekkee dañ ko wax tamit ñu jàpp ne nañu war a assumé li nga xam ne réew mi mooy réew mi dafa dëgër kon nag buñ ci jugee dinañ ñëw ci histoire bi nga xam ne moom moo am ci bennoo jigéenu bennoo siggil Sénégal lan mooy histoire bi mooy am na biee Makka yoo xam ne jigéen ñi ak tirage bi ni mu amee yëpp di ngeen ko fekkee dund ko ñu xool coow la lan lay mujjee Adja Wore Sarr moom ci boppam nee na li ko Macky Sall moytu bañ a ñëw gunaas teewul moom dana ngacc ay ngaccam te kenn mënu koo tere nga yéen si cette émission Kouthia Show ki nekk ci réalisation bi rek moom moo fóot yére bi ñaan ko Pierre Da Silva ànd ak équipe bu mag bi nga xam ne ñoom ñoo nekk foofu ñoom toog ñoom Bamba ñoom euh, Mbuub suñu xarit brassard rouge jëmale ko ci ki nga xam ne mooy Kouthia lu waral loolu nag incha allah suba ci alxames bi dinañ ci def émission spéciale ndax grève bi nga xam ne moo war a am ci euh, ñi nga xam ne mooy liggéey Kouthia mais nañ daal kontaanuñu ci Kouthia grève wuñu pour euh, administration mais dañuy grève pour Kouthia Show te incha allah vendredi émission bi dinañ ko sabote ba nga xam ne dana leen delluwaat toog suñu place bu leen fàtte ne Macky wengal <laughs> ko nii am nii am nii war teggi ko rek mu leer naañ ne wuy ndale waaye ki wat moo aay <laughs> sama wuu ki wat aay na gis nga muy brillé nii la ilaha mais merci waay mais vraiment Amina kontaan nañ ci yow quoi mami mi nga xam ne nag moo nekk ci décoration euh, def nag fi parfum yi ba parfum bi daa neex ci biir kër Kouthia gi waaye pompe tamit ba yooyee ak yooyu ñëpp daa dee dem ajjuma <laughs> daal kër gi dina yëngu yuusu nag wax naa la ko ajjuma billaay kër gi dina yëngu parce que gars mere nañ ma mere boo xam ne teguñu ko fenn <laughs> waaye on a fait